TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des merci de vous des merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé, à hein. chaque fois de partager des informations, yi mbokki sénégalais fait follement la 14 régions du Sénégal ruq-ruqaar yi gox goxaar yi ñu ngi di également ci la l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom seen bopp ngi wér ñu ci yi nga aussi erreur judiciaire gi leen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot de droit àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu gars yi actualité bi nag ñu fas yéene waxtaanee Bayern Munich mi nga xam tey la def sen présentation yi Kingsley Coman bi am ab gañu gañu Sadio Mané mi ngi Bayern na ba léegi fan la situation bi tollu lan la mi di évoluer ñu fas yéene ci indi ay léral inshallah allah rabi mi dem fàttali gars aussi bëss leen ci lien bi dem abonné ci Baba Show té aussi surtout di sétane vidéo yi gars ngir ñu mëna commencer jeu concours parce que comme on dit dañu bëgg jox ñi sen mayu sago tambalé li nag gars moy programme donc Ligue 2 Ligue 1 sénégalaise plutôt ah donc mi ngi ni programme bi tay sen match yaa ngi nii Casa Sport Sonacos Cedon US Gorée Jambar ah aussi ñi di champion yi ah, donc jambar ak ñom ñu équipe yëpp ñu ngi wara jouer ki ngeen gis na gaay moy Bougazeli Bougazeli c'est un jeune bo xamné ne moo nekk meilleur joueur national Nek ñaari tali ancien joueur de génération foot hein. Ah, Nek Boy bu am talent donc mu ngoog gëm boppam ñu koy souhaité aussi yàlla ubbil ko bunt parce que Yagna na ci football pendant ce temps kii nag di Khalilou Fadiga ak euh, donc kii di euh, le nouveau ministre des sports bu Nigeria, di Okacha, Okocha dañoo dem ca Tchad dañ leen fa invité donc mi ngoog ah kii nag di Mohamed Kudus aussi moom ah dirigeant yu euh, Ajax Amsterdam wax nañ ne officialisé nañ ne di Mohamed Kudus de leen wax ne donc démb seen match amical bi jeexee ñoom ak Anderlecht bu ñoom que dafa bëgg a jugee fa nga xam mooy donc Ajax fi mu ne nag euh, Chelsea daal la ñu ñoo intéressé wu ci moom kii nag di Axel Disasi gannaaw bi nga xam ne ñu ngi wax Manchester United fi mu ne nag am na ñu duggaat ci euh, langue gi Arsenal ak aussi ñi nga xam ne mooy donc waa Chelsea ñoom it ñi ngi ci Chelsea bi nga xam ne aussi Wesley Fofana day gaañu ñoom it ñi ngi si nga xam ne Axel Disasi kii nag ngeen di gis nii ah donc Wilfried Zaha moom daal Galatasaray officiellement tàmbali nañ waxtaan ak moom hein donc pour daal di koy recruter Wilfried Zaha mi nga actuellement agent euh, libre la de nekk du côté du cristal Palace finalement mu ne daal qui moo ci des kii di donc également Eric Bailly Eric Bailly ba Bailly ou là moom dal, fi ou ne nii Nasr ci kawam donc di ko waajal defal proposition pour mu daal di fay ñëw contrat ñu ngi wax ay contrat boo xam ne nag ba ci 20 millions lay doon ah, donc loolu dal, fi du côté de Al Nasr qui nag mooy Alex Telles wax naa leen ko na signé na officiellement donc du côté de Al Nasr bu qui dit di Cristiano Ronaldo ngeen gis ko Alex Telles le joueur brésilien de Manchester United nga xam dañ ko àll woon daaw signé Neymar de retour de blessure tàmbali na entraîné ak waa Paris Saint-Germain Neymar nak ah ren mom sa saison là vu que né voilà presque kàngam yëpp a ngi dem donc jóge nga blessure am hygiène de vie et aussi entraîneur bi leur gis nga yoroon na la donc on espère que di nga wane ça bopp pendant ce temps nak Marie-Antoinette Katoko mom nak di international française gaañu nag moo tax demoon ci mondial bi mom tamit joueur joueuse Paris Saint-Germain la moom daal fi ne mi ngi soutenir Mbappé mi nga xamné donc gis ngeen ko temps yi dañ ko yobu ci loftu bi ki nga xam nag également mooy Alejandro Balde mom nak contrat moom ak yeneen yamal euh, signé nañ lépp léegi nag officialisation bi waa baax nañ bàyyi ba jógee seen tournée bi bi ñuy def ba pare bu ñu dellusee tournée américaine bi bu ñu dellu see ñu dal di koy officialiser ñom prolongation contrat bi au 2028 gars match bu neex nak ah équipe bi gëna a mag ci walum Ligue des champions di Real Madrid la Casablanca tay lañuy dal di jouer waa Real ñom ak wa Milan AC aussi Milan l'un des clubs les plus titrés de la Ligue des champions ñom ak wa Real ñoo nekk ci kaw ah lii nag gars classement ñi ëpp en Premier League au 21e siècle 21e siècle nak yamul la gars ci saison bi boo bolé saison yu bari ci ginnaaw Manchester United ba légui mo nekk ci kaw mo nekk premier ci Premier League ah, United ah, ñi ci kaw kaw top

ki ngeen gis ni di Rafael Guerrero? tey présentation la woon bu Bayern Munich ah seen effectif bu saison bii di nekk ah donc kii di Rafael Guerrero? dafa am gaañu gaañ gis ngeen ko ni la duggee ak ay békk yi ci li nga xam nag mooy donc euh, présentation yi moom daal dafa mel ne dina toog ab diir du daal di fubal président bern également am na yoo xam ne aussi wax na ko ci loolu yëpp dañ lañ koy leeral d' abord gars yi ñii lañ ne bon ñooy concurrence de Sadio Kaiser magnifiquement ah ki ngeen gis nag di donc euh, Kingsley Coman dafa am gaañu gaañu gars yi dafa am problème musculaire donc euh, ndax ndax lu garaaw loolu du graw loolu nag pour l' instant gars yi waxaguñ officieusement mais tay entraîné wul après présentation dafa dem dugg mu mak Sabit Sèye problème musculaire la am ki nga xam moy commande lolou dal na daw donc problème musculaire mom dako yag sonal donc aujourd'hui également Sadio Mané est là Sadio Mane demagul dañoo jouer ñom ñi di wa Bayern ak ñi nga xam moy donc wa Manchester City mercredi là wara jouer donc mercredi également ce sera peut-être une opportunité pour Sadio Mane mu woné fa bopom et que aujourd'hui également li ma wax rek Sadio Mane deglu na wa Al Nassr du ma day demol demee pour l'instant yi joxagul ak accord am li gars di wax waxagul waaw donc parce que bo xol waaw dégg ngeen ne ko parce que Bayern lo rek lay xaar donc aujourd'hui Sadio Mané amna opportunité fi ak muy dem on espère que day toog loolu ñaan bu demee tamit dafa wara dem donc am possibilité jouer match bi mercredi contre nga xamné moy mooy donc City wala bok mu nekk match boo xamné dafa wara a jël revanche parce que match bi bu len fàtte match bobu amna lu fi xewon mom ak saa waay ah mooy booy cuune bi may bañ a tudd turam donc en tout cas dal mbir yi ñi ngi bouger joueur yi ngi blessé ñaanuñu ko yalla mais nak ça montre aujourd'hui le Bayern a besoin de Sadio Kaiser magnifique Mané par rapport déjà mom élan bi mu nekk mom ak Coman ñofa nek ak parfois Ñabri hein ah, donc même sax côté bële Ñabri mo ak Leroy Sané là. Donc aujourd'hui, vous faites qu'un commande de jouer, donc ça devrait être sur le banc. Maintenant, on ne sait pas si fait une blessure il y qui est Kito, commande de Fakao Metti, Sadio Mane ne jouer. Donc gars, a une information ñu jox ci Tout touti amna yenen yu union, comme je dis point mercato ak une joueur ak une affaire de grave, <laughs> gars bu une dal lu grave On avance ensemble dans la magie de sport TV gars. vous baxé ci vous la, bu Toujours un plaisir de vous servir. Abonnez-vous à Babo Show. beaucoup ci concours gagnez-moi gagnez yi